fi ñu war a jaar jaar nañ ko ndax yeneen saa yi nga gis artiste boo xam ne day tëm ne woykat la waaye jaarul fi war a jaar wala yéen sax amu leen liste boo xam ne ni bayeekoo na ci moom ngeen xam ne diw moomu day woy wala ngeen di dégg woykat boo xam ne ni turam yàgg siwul si yéen ah. ndax loolu naqadee rek la tamit léegi ah, ñun ah, we are registering mm-hmm. members yi mm-hmm. ñu bari register nañ mm-hmm. bente ñu ngi oote Gambian artiste yi ñu ñëw di register ndax soo bugg a oote doo xool kii ñëw te ma uyu mm-hmm. du ma ko boolee suma biir mm-hmm. ndax ñoo ko moom bon dinañ ubbi bunta bi mm-hmm. pour ñu gis ne ni kër bi ñoo ko moom dañ ko war a dollil so ñu nga xam ne registre nañ ak ñu registre wut yëpp nañ leen engage pour mun a gis ne ne ah, bi ñu ñoo ñu ñoo dem kanam ndax booloo mooy dool mooy dool bon am na ay sàttan ñu nga xam ne tam teg nañ ko mooy ne képp kuy gàmbeel aati si réew mi da nga war a ñëw registre Mm-hmm. ndax sa liggéey bi mm-hmm. dafa dafa la ci luwaa lu la war a aar sa diggante yow mm-hmm. ak producers sa liggéey bi dafa aar sa diggante yow ak event organisers yi sa liggéey bi dafa la aar sa diggante ak ku lay manage ci boppam sa liggéey bi dafa aar ku nga xam ne sa mu ngi laa feccal kon yow wargal la artiste bi ñëw register si music union nga xam sarta yu nga xam ne moo lay aar pour nga mën a am sa intellectual property economic benefit kon lii lu nga xam ne la am nekkul yëfi fo mhm. lu nga xam ne la luy jël réew mi la mhm. lu nga xam ne la luy mën a jàppale artistes yow xam nga ne mhm. artistes yi bëri tey bokk na si problème yi bëri yi nga xam ne jànkuwantel ñaaka xam luwaa bi ñaaka xam sarta yu nga xam ne loolu la ñu war def seen contrats pour ñu mën a jàppale seen boppa pour seen ëllëg seen bi du mën a am yaaxum yaaxum su kanam an yow mun ngaa nekk suma serende eh, ñu bëri ñu ngi jànkuwantel si loolu an soo gisee loolu ñaaka ñëw uyu ndax amul kenn ku ñu bàyyi bu ñu formé musique yi nu ak léegi mm-hmm. oote nañ mm-hmm. oote nañ mm-hmm. ba su ñoo liggéey nag du ñu xaar kenn ku ñëw foo ñu foo ñu fekka ñu ak yow dëgg bàyyi waaw euh, mu nekk lu am solo mbokk yi nga xam ne yéen seetaan Gambian Talents TV live and direct Saafara Show spécial euh, ñu rek nekk fekk ki nga xam ne mooy Mame Soirée euh, ci li nga xam ne mooy Gambian music mu nekk lu am am solo mbokk yi Olof Njaay di faral di wax ne ku boot bukki xaj baw la waaye xam ne na artiste tamit am nañu neex a boot am nañu naqadee boot ànd ak ñoom ndax méttiwul artiste yi <laughs> ah, ànd ak ñoom métti na méttiwul mm. ndax ah, soo gomee looy def mm. ah, kenn du la si tax nga bàyyi dëgg ndax diine ba si boppam comme mm. nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wallaay ndeysaan kon lépp looy def war nga ko gom liggéey bi liggéey bi xam ne na lool dëgg ndax some of them lu ñu ak lu xew ak nu mu war a doxee du mm-hmm. benn mm-hmm. loolu nag lu koy mun a def mu génn si yow mm-hmm. mooy ñu mun a laa xamale nga mun a xamale keneen loolu nag nga ñëw uyu kër bu nga xam ne yaa ko sampa nga mun a xamale lu la war a aar nga mun a xamale ñu nga xam ne ñoo nekk sa gannaaw yaa ngi leen a boot di liggéey ak ñoom ci aar Euh, mu nekul am am solo euh, ndax bu ngeen jité mu si gambé am nañu fi nekkon bala yeen wala yeen euh, ñaata yees yeen nga doxal lu melni wa euh music union bokk the founding part of the musician union. Mm. le Melo moy the first president of the musician union. Mm. ñu bëggé fa ñu am Oliver Mbodj. moy mm. the second president of the music union. every three years dañ dem congress. ñu bëggé fa Jalba Kuyate ñew mu nekk the president of the musician union. ñu bëggé fa Pam Modou ñew President Moynika, President of the Musician Union of the Gambia. Mm Every three years, then they them Congress sana a mm. new exit through mm. ñu mun a toppa the interest and welfare of Gambian musicians in this country mm. at direct ndax contrat bu ngay sign sa, You war nga ko xam Begit la kon so nekkee member am nañ legal officer lawyer bu nga am ne moo ngay liggéey ak music union contrat yu nga signé nañ la ko dinañ mën a jox lawyer ñu jësti ko ndax contrat bu nga signé ak producer bi mm. o even organizer bi mm-hmm. mbaa sa interest mu fa mm. o sa interest bi nekko fa o lu fa mm. nekka baax na si yow o baaxu si yow loolu nag lu jara xam la mm-hmm. ndax mun na laa gaañ dëggit waaw mu nekk lu am solo euh, tey nga waroon a ànd ki nga xam ne mooy euh, Pa Modou defe naa waaw Pa Modou président ak suñu programme manager waaw Jali Jali nag moom sama rakk la macha allah ñu nekk sa jaba euh, lan moo ko gàllankoor wala lu leen téye ba ñoom mu nga am beneen métier Ah, suñ programme ma ne tam ñu ngi si yeneen programme yoo xam nga ne fi mu nekk nii twenty eight bi so jege na mm-hmm. kon ñu ngi si yeneen ah, programme yi gaa di def mm-hmm. moo tax mënumaa ñëw ak ñoom mm-hmm. ma ñëw as a PRO ñëw represent the executive bi waxtaan in behalf of the executive bi lu ñu am ñu woone ko Gambien yi lu ñu am ñu woone ko Gambien artiste yi kon képp nga xam ne gisuloo sa bopp que liste bi bul gis sa bopp next year mu ngi fa ndax duñ mun a oo yëpp mhm. benn yoon mhm. ñu bokkal ko si event bi mhm. ah, every year dinañ celebrate World Music de and dinañ make sure ñu nga xam ne participate nañ this year next year suñu programme bi ñëwee dinañ gëstuwaat ñu xam ne bokkuñ fa woon ñu bokkal leen pour yëpp mun a am njëriñ bi ba pare tan dinañ leen jox commitment fii bu nga xam ne wax dëgg yàlla ah, dina mun a bos xol bi Eh, célébration bi yàgg ngeen koy def wala bii mooy first time ngeen doog ko commencé. wala da ngeen ko def ah, ngeen poson. defoon nañu ko eh, with Alan Franco. Mm. Mm. ñeneen ci yoon. Mm. Ah, ñu ñëw am texa texa. Ah, financial constraint mu fa. human resource constraint mu ngi fa. membership participation mu fa. so loolu tax na am na ñetti at yi nga xam ne ko. but with this new executive bi. toog nañ just to activate all our programs. gestuwaat ko ne mm. lu nekkoon fii war na delluwaat ko mm. with the good leadership bu ñu am mm. ñu gestu ko ba mun a delluwaat gestu ko ak Alain Franco ñu joxante loxo pour ñu celebrate World Music Day bi again dëgg it euh, ban ban teq-teq ngeen amoon ba def leen koon seen diggante musicien la wala yéen neen seen groupe bi dafa am lu ngeen doon régler bi financial koppar bokk na si muy xaalis xaalis lu mu du dox bi membership commitment bokk na ndax ko ñu bëri ñoo view music yi nii ak lu musique yi noonu tax a du ndax ñun duñ ah, promoter promoter bu nga xamné mm. dañu taxaw di make money in top of our members mm. but mbootaay la bu nga xamné mm. dafa taxaw lepp lu domam yi di def mu ar leen dinañ am nak ay activity nga xamné every year dinañ ko def comme Gamfest bobu festival bu nga xamné at bu nekk dinañ ko def bobu nak ñoo ko moom mm. artiste ñoo ko moom ba pare World Music Day mm. at bu nekka mm. dinañ ko celebrate boobu ñoo ko moom soo ñëwee si training euh, capacity building training every year dinañ ko def in fact in this World Music Day celebration bi am nañ euh, euh, forum bu ñoo organise am nañ ten demand bu nga xam ne loolu lañ bugg a teg pour ak nguur bi ñu mën a si tontu nguur bi su ne nguur bi nag am na ay mbootaay ministre yi nga xam ne nguur bi dañ leen taxawal pour gestu mm. luy jëriñ doomu réew yi mm. kon ten demande boobu noonu mm. euh, ministre of information and technology ministre of tourism ministre of justice ministre of euh, euh, interior pura GRA ñi yëpp national assembly cultural committee bi ñi yëpp dinañ leen involve involve si forum bi ñu jox leen this ten demand mm-hmm. and bëgg nañ this ten mm-hmm. ñu tontu ko lan moo tax lii doxut mm-hmm. lan moo tax lii amut lan moo tax lii ñu ñàkka ko ndax ñooñu ndax góor yi day nguur bi daf leen jël sas leen di leen fay kon lépp lu nga xam ne koom-koom réew la mu mun a jëriñ doomu réew yi mun a jëriñ réew mi war nañ ko seppi aar ko ndax soo seetee tey eh, am am nañ work permit nekkul société entertainment bi mm. amoon ñu bëri ñu nga xam ne ñu nga amee work mm. ñu ngi organise events mm. ba pare foreign artistes bëri ñu ngay ñëw promoteur ñu ngi leen indi comme ah, ah, comme bu nga xam ne taxes yi nga xam ne nguur bi war na seen njëriñ loolu amut ba pare artistes yi copyright law bi ak royalties yi ah, intellectual property benefits yi lii yëpp artistes si nekkuñ di ko am ndax seen musique seen film seen comedy content yii yëpp medium ñu ngi ko exploit without any mm-hmm. royalties bu nga xam ngay ñëw si ñoom mm-hmm. kon loolu nag mm-hmm. lañ nekk di xeex pour gis nañ ne lu media bi mun a aar seen béppa ba mun a protect seen media company eh, media content mun a eh, protect seen institution bi ñun tan lu bi di seen tin la sas pour mun a protect artistes yi mun a protect producers yi mun a protect event producers yi lii yëpp duñ ko mun a am si nekk nekkuñ benn jàppalante kon lu bari la so forum bi purposely mm-hmm. is for that mm-hmm. this ten demand mm-hmm. la ñëw teg stakeholders yi nga xam ne ak government bi ñu mun a lacce leen ñu mun a ñu tonto from there dinañ mun a xam way forward and solution euh, macha allah mu nekk lu am solo mu amee soirée euh, ci ci ci nga xam ne mooy euh, soirée waaw Sapara Show ndeysaan ñi waxtaanee ba tey Gambian music moom la ñu am doomu aadama nag li nga am da ko koo war a gëm li nga am da ko koo war a fonk balaa ngay dàq kéwél mu jëm àll olof njaay nee na dàqal kéwél euh, mu dugg ci biir kër euh, mu nekk lu am solo te gis na ne Gambian musique tamit gars yi ñu ngi góorgóorlu bu baax macha allah mhm. euh, ñi ngi bay seen waar ndax ku xool time pass ak this time am na différence bu wuute wuute wute waaye ñu gis na tamit artistes yi ñëw neen seen biir sometime nga dégg ay calañante maanaam dem ba ak jubóo di am seen biir ndax lool tamit yéen a ngi dox pour ñoom ñu gën a nekk benn xam mi benn la yee waxtu bu nekk mm-hmm. ñu dee promote mooy jàmm mm-hmm. artistes yi ñu nekk benn mm-hmm. soo gisee suñ ten demande bi fukki demande buñ teg mm. problème bari tey at bi rek yow xam nga ne am na problème bari yu nekk diggante artiste ak label mm, dëgg ah mm. dégg nga problème yu bari tey nga xam ne artiste bi ak manager am ñu ngi ko jànkuwante lu wér ñàkk xam lu keesu bëri ñëw na si lu ko tax ñaaka loi bu nga xam ne contrat yi nga war a defar noo ko war a defee pour ëllëg artiste bi du am problème produce bi du am problème wa mm. event produce mo xamné fla jël pour nga performal ko mu fay la mm. do am problème manage bu nga xam la mu ngi laa manage mu la outal utal koppar mm. di ko indil do am problème ndax su mané gi bi te gisul bopam ci sa liggéey du dem an artiste bi tan war na gis bopam ci liggéey mané jati kon luwaa yooyu non dañ ko wara a ñu xam mun a xamale si biir forum bi tam mm. dinañ oote mag yi nekkoon fii mm. ñoom Abdou Kabir Ngom mm. ñoom Baye Jangha ñoom eh, Yusulay Signor mag yi fa nekka ñu am interaction ak xale yi ndax soo xamul démba baraka démba ak démba wax dëgg yàlla présent yi mën la ko connect ak the future kon lii yëpp mu ngi bokka si World Music Day celebration bi from twenty yet to twenty fifth la ñu def activité yi yëpp yu ma xam ne ne loolu laa wax fii si Gambian Talents TV. macha allah euh, mu nekk lu am am solo ba tey ñu gis ne euh, dañ dee faral di am euh, yeneen ñu seen bàyyi ko outside ñëw fii te gis nañ ne Gambian music bi xañ na bu fekkee mu ngi am tamit bëriwut pour ñu war a jege fi dem outside pour dem foofu ñëw loolu xëy na bu dee am tamit bëriwul noonu. léegi lan moo waral tey jii ñun. ñu ci ëpp di ñëw fii waaye ñun mënuñu am ba tey ñoo xam ne war nañu mën a génn outside dem um, laajte boobu dina kontaan trop mm-hmm. Eh, music hmm. dafa melni ni jaxatu bu ngay jëndee ci marché bi. mom jaxatu kané bi dëgg bay ma dégg nga wolof grievance yi nga xamné yo nga day jël. dégg nga wolof de ah waaw. xam nga so demee marché. <laughs> Hmm. dafa am loy jënd nga dem toga hmm. xorom bi dina em. dëgg poobar bi dina em lepp em jimbo bi dina em. nga toga toga bu nga xamné yo dang ko mëna lek mun a lekk nga am tas. dëgg tas boobu noonu nag. ñu mm-hmm. ngi si yoon bi mm-hmm. tey appreciation of Gambian music mm-hmm. ak test of Gambian music mu ngi increase but export bi internationally loolu Gambian music producers yi bokk nañ ñu nga xam ne war nañ si dolli artistes si seen boppa ñu ngi liggéey ñu gën a yokk seen liggéey pour mun a gis ne ne arti international artistes yu gars di indi mhm. Mhm. fii ñu mun a export suñu artistes yi tan mhm. si biti loolu nag doomu réew yi ñoo ko mën a def xam nga ne am nañ promoteur yu mag yi ne nga nekk tey ñu ngi Amérique ñu ngi Angleterre ñu ngi Sweden ay doomu Gambien lañ bon lan moo tax duñ de export aw Gambian artistes yi loolu jar na laajte moo tax dis ten demand dinañ mun a xam lan moo ko tax ak lan lañ ko mën a solve mm. euh, foog la tamit gars yi dafa am lu ñu nekk di calculer comme nga jël artiste bi yóbbu mu dem ñàkk a gëm boppam dem toog ne du ñëwaat boobu bokk na si waaw dëgg it ba tey mm. euh, tuuti less percentage mm. ndax Freaky Joe dafa change that narration amoon na jamono artiste yu bari dañ doon dem di toog an doo leen ci beneen côté am mm-hmm. not encouraging anybody mm-hmm. dem toog Europe mm-hmm. ba dafa am challenges yu nga xam ne di à facing soo dafa tax loolu dañ dee am trauma soo moo tax ñeneen yi du sen sako ba dañ dee toog ah lu ñu advice mooy tool boo béy bi gerte bi ñor nga peese ko mu laa njëriñ warloo see taw toog war ngaa meeg sone loolu mu njëriñ la boobu benn la ñaareel bi structure si nekk si réew mi su taxawee daf dee mën a yomba ñu export gamben artistes yi sen products internationally because trademark la trademark bobu nonu right la yo tay sun la jele contract as a comedian nga wara play in Germany or Sweden certain lu nga xamne papers yi nga xam documentation yi nga xamne lolu yang ko am si government bi parce bi warna la jox visa ndax ya ngay dem liggéey ba sarte yi nga xamne moy mooy tax suñu artiste mën am dat legal rights either industry bi mungkin regulate in that structure tey suñu dëkkandoor yi hmm. ak ñun artiste suñu demee si ambassade most of them dinañ jox suñu dëkkandoor dan dañ ñun hmm. lu ko tax legal document su nga xam ne dinañ leen contract bi hmm. seen minister of foreign affairs minister of tourism di musique musicien yi ne di Gambie lii yep ay recommendation la yu nga xam ne war nga ko am si sa contract bi so agi ambassade bi nga am sa press book presse book bi mu ngay woné lepp luy revenue bu nga xamné yang ko dugal ci at bi mu fa pour ambassade bi mu na xamné yow sa kom kom bi yang ko am assez data dinañ mu na xamné ci at bi yow sa ligue bi mu nga dugal two three hundred thousand dollars au half million ci at bi wax deug yalla ligue bobu nonu suñ la ko santé nga dem def ko america foog mané ne ambassade bi dina la reject ndax promoteur yu fa nek ñom dañu register am sen legal document paper am sen work permit ba ñun amuñ any work permit lancing buy tax ne soy organize event loolu nga wara am pour nga am event amul Gambia anybody mën nañu tek programme ñu la nexé ma jox la exemple tay bore bi lo tek ivé ive bore amuloo lansin bore kat bi mën ta bore amul lansin lu fa tax di yini yonbi. bi seen members dañ leen dolel ñoom di ñu dooleel seen bopa ñu ànd ak luwa yu nga xamné mo sarta yu mëna mutal kon ñun tan artiste ñoo ñu mëna dolil pour luwa bu nga xamné mo leen aar ñu mëna ko empower ba pare government bi mën a gis ne we are in one voice. Euh, macha allah euh, mu nekk lu am solo euh, ndax boo hmm. waaw waaw dina dinaa euh, dinaa gërëm euh, mag yi ndax soo gisee tey baraka demba moo paase demba paase tey jot mag yi am nañ luñ liggéey ñu toppa mag yi am nañ liggéey te jamono bi ndaw yi fa nekk ñu ngi liggéey bu baax mm-hmm. yow gis nga tey képp ku am programme si Independence Stadium mm-hmm. o Q daf dee fees ñaata ndaw la dee employé mm-hmm. dëgg it. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. xam-xam bi bi nag da dem ku ko xam mu xamale la nga mun a xamale keneen loolu ooj ndaw yi tey ñu mun a gëstu bon warsak bi tey law na soo ne tisoole tey stade bi fees bon sustainability bi consistent uh, continuity loolu mm-hmm. lu jara gëstu la mm-hmm. si musique bi macha allah ah. uh, mu nekk lu am solo uh, Mohamed tey noo gisee musique yi démb ak musique yi ci qualité bi waaw ci gëm-gëm beeg jikko yeeg yooyu noonu ah, tey musique démba mm-hmm. creativity bi was standard amutoon devices electronic devices lu bari si seen record But technology development bi dafa tayloo artiste yu bari ndax laptop bi mun nga créer sa beat mm. nga jël sa mic nga teg mm. nga dugal sa voice mm. nga mix ko next minute nga yóbbu ko si studio am ah, mag yi duñ ko doon defee nii kon da ngaa gis ne quality bu fa nekkoon si mag yi wax dëgg yàlla ndaw yi war nañ ko yokka waaw pour wax la dëgg-dëgg ndaw yi war nañ ko yokka technologie bi ñëw na pour jàppale sa créativité bi originalité na reflect it's a technology composition of your music mm-hmm. that will help you macha allah uh, mu nekk lu am solo mbok yi nga xamne yene baxo di setan Gambian talent TV sa paraso special ak sen doomu ndey Moussa Jinne uh, ñi waajal li nga xam ne nag mooy uh, Music Day mm-hmm. lo nak kenn ku nekk wala ku nekk artist nekk ci biir mi rek war nga ci meuna gis sa wala sax ku artist ndax te rew mi ñoko bok lu way di yëngu rek war nañ ko caa mën a fekk mm-hmm. jappale ko kon moom it dañuy ñëwaat ci li nga xamne moy wall Music Day boobu non ngeen di waajal different different place yi nga xamne ne ngoy a ngi jël ku fay dugg free la free. su ne ñu start su nekk ñu start twenty years in mm-hmm. Brikama. Mm-hmm. like Jalba Kuyate, Tada Dinding, mm-hmm. example, they will be there. Contemporary artists, dinañ fa nekk. best bi management of the musician yi noonu yëpp dinañ fa nekk. you celebrate leen door on the twentieth exemple. suñ fa jógee ñu ne tey Serekunda la. dinañ am baan yu fa nekk. ñoom dinañ baag artistes yi. ñu célébrer Ndor sarakunda suñ fa joggé mm. ñu dem Banjul mm. suñ fa joggé mm. ñu am caravane tour bi caravane tour bi nag dinañ ko décorer lool def live band ci bir caravane bi am suñu MC am media ci yépp kep ku ñew da nga am internet free bu ko luñ fa tek bes bobu noonu internet du nek problème any media house da nga ñu nga connect nga def sa live stream ñu def ko caravane foofu te muscler caravane bi clé fële Brikama ñu fële Brikama duñu fële Serekunda ñu fële Serekunda duñu fële Arek na bis yëpp mun a gis seen bopp ñu test different day free la dañu ko start five o'clock ba gis léegi bis bu nekk liste bi mën nga waxtaan suñu président liste bi génn guñu ko parce que ñu ngi joxe yëpp yëg ko mm-hmm. ak media houses yi mm-hmm. nee ne World Music Day bi mu ngay ñëw mm-hmm. liste bi ñu ngi communiqué ak artistes yi bi su génne dinañ make sure Gambia Talent will be the first media buñ koo jox incha allah ndax Gambia Talent TV Gambian music moo tax mu taxaw macha allah Gambian music paos mu maa dégga Gambian ah, music moo taxaw moo tax Gambia Talent <laughs> kon suñ kër la fii mun nañu tëdd fi nelaw mën nañu war lu nga xam ne moo gën ci réew mi mm-hmm. duñ xat mm-hmm. ndax suñ kër la mm-hmm. eh, lépp lu ñoo def duñ leen bàyyi gannaaw waaw dëgg mu nekk lu am solo Mohamed mbaa doo wax loolu nga nga dem am fu la gën a jege rek nga ne xaaral ma doo dem Gambie paos ñu nag ñoom yàgg na benn dem bàyyi sa morom eh, macha allah eh, mu nekk lu am am solo kon li nga am yéene seen am nekk am solo ndax lii di leen ko war a war a ñëw Yeah, ñu jëwee bu tàbbee am am mm-hmm. and French band am Kumare band from mm-hmm. am Salam band mm-hmm. am Himantista am Himantista am Holy Family ñi yëpp we going to engage them at least bi joxaguñ pour génne ko public mm. ba ñu ngi communiqué ak ñoom mm. ba pour ma wax la hundred percent ne mm. ñu ma côté nit ñi nga xam ne baan lañ ñoom ñooy baak artiste yu nga xam ne ñu xam ne amuñ baan contemporary bi ñoom dañoo play semi ñoom semi life la ñoo play nga gis ne ne yëpp mun a gis depuis tradition bi ñëw si moderne bi ñëw si live band si yëpp ku nekk dañoo def lu mu sa am nañ di celebrate but amount of artistes yu engage musta am waaw di congratulé ministre de l'union président di Pa Modou ak team bi yëpp di gërëm Alain Franco Kane di leen di gërëm sponsor yi nga xam ne ñu ngay ñëw ñooguñ ñun si yoon bi ngay daw di ñëw waaw waaw dinañ ñu si ñëw waaw ndax loolu dëggit baay aaral tiis dëggit baay te muy dëgg uh-huh. réew mi ndeysaan war nga gis sa métier bu nga xam ne loolu nga si gom war nga gis message message bi nga xam ne loolu nga yor pour transform the generation dëggit into so foog naa ne ku bokk sa liste bi uh-huh. ak ku bokk sa bi uh-huh. am si kenn warta gis sa bopp dëgg baay ndax soo bokkul si dis ya mm. nekk see da nga bokka mm. soo bokkul si mm. am na activité yi nga ko def dañ see bokka allah am nañ the entire list of Gambian artists yi macha allah mu nekk uh, lu am solo uh, wàllu sponsor dana si ñëw ndaxte réew mi tamit nga yëngu ci dara am ci ndimbal am ci sponsor dafay jafe lool lu waral loolu noonu ndax gars yi uh, dañoo wala gars yi maanaam dañoo bëggut a jàppale Gambians wala daal seen alal lañ bañ a génne pour def ko ci li nga xam sponsor ndax loolu dañ koy jooy trop Mm-hmm. Mm-hmm. dëggit kumba amul ndey kumba amul ndey ñaareel xam naa gom-gom lu nekk si biti wàññeeku dëggit bon gambien bi dafa gom lu nekk si biti trop mm-hmm. daan lu mu am si biti lu nekk ci biti moom mooy comme lépp lu nga xam ne si biti la jógee bàyyeekoon outside mhm, du ci gis boppam gën a teg bottan mhm, mhm, moom dëgg it loolu si sponsors nga artiste yi ñu ngi jànkuwante ndax artiste yi de am nañ problème si loolu am na ay few war nañ si yokk waaw war nañ si yokk suñu loxo ndax loolu mu ngi euh, dellu gannaaw tuuti suñu industrie bi ndax investment bi dañ ko soxla so dee investment yi nga am ku nga xam borom alal la mu dugal xaalisam bi si industry bi mu na si gain tay kenn du wax ne ne music industry amul kom-kom bu nga xam soko soo do ko am leer na Independence Stadium bi mu ngi ni City mu ngi ni proof nañ ko kon na borom xaalis yi invest lu ñoo di joxe yene rew yi nañ ko joxe ndax rew mi ñu ngi lose over 50 million dollars revenue in this country jele ko work permit endowment fund bi nga xamne foreign artist ñu ñu ngi leena collect sen loxo di ñu ne ñu ngi NCH ñu ñu ngi jappale gamel artist lolou ben tay ah, ñu ngi lacc traction amaguñu answer bobu so ñewé tan promoter ñu nga xamne ñu ngi jël artist yi ah, outside di in the amount of hard bu nga xamne lolou lañu spend So ko dajalé yépp dem na over 50 million mota ci ten demand bi ñu ngi try gis na ne ñetti wër yu nga xamne moy dess ak at bu bi ak ñetti wër yu nga xamné ne at bi suñ si duggee bëgguñ kenn mu ñëw suñ kër bëgg na ñoo def on bago ci lolu ba lolu nak ñu ngi waxtaan ak nguur bi ak stakeholders si naka la ñu mën a ndax waxtu bobu la 50 million bi o 30 million o 40 million bi di gëna jaruma tuxa seen tour da so ba waxee sen tour ma nga leen jox bayre de yo xam nga ne ñaata artiste mo de ñew Gambia fi kene ku nek ñaata nga de ñaata nga ko defee yo xam nga soo jëlee five artistes nga boole yëpp dem na fifty million lu tax mënu ñëw solal loolu suñ doom yi kon loolu moo tax ten demande bu nga xam ne ñu ngi lacce nguur bi ñu tonto ñu cultural committee bu nga xam ne mu ngi nekk si national assembly bi ministry of tourism and culture foofu lañ dee jaarale seen yëpp lu ñu bëgg a def ñooñu tan danañ bokk si forum bi ñu am lu leen lacce ministre bi dina am lu ñu la laajte ministre ministre of youth dina am lu ñu la laajte ministre of tourism and eh, trade ak eh, foreign affairs ak information ji yëpp am na lu leen la laajte ndax am na lu nga xam ne seen loxo àggu fa an ñu ngi toog government di si ñàkk a koom-koom ñu ngi toog ndaw yi nga xam ne ñoo yekkat yëngatu si musique bi liggéey boo leen war a jox pour ñu mun a si am koom ñu jël koom-koom bi mu des réew mi ñu ngi koo joxe si yeneen nit ñi si biti loolu war nañ ko jastu ndax Gambia fi rek ngay gis si media bi ñu ngi xejaloo ak ñeneen ak ñeneen ba ñu faatu suñu doom yi loolu nag war nañ si yokka ndax jamono extra touch ak léegi ute na am nañ improvement but improvement bi benn tey dañ ko war a yokka waaw. Euh, macha allah euh, euh, mu nekk lu am am mu nekk lu am solo mu nekk lu am solo Mohamed ndaxte comme ni nga ko waxee ni maanaam compagnie wala dañu war di jàppale ndaw yi ci wàllum sponsor ndax lu ko waral mooy artiste bu ñuy woy amul kenn koo xam ne yaa ngi ci dëkk bi gisoo si sa bopp. ndax man mi di wax yow xam naa ci dara ndax damay jaayire tey ji buñ ne dafa am kuy woy kiw ti wala studio wala fu mënta kii xale yi bis boobu dañuy ñëw jënd ci yére taxi maa ne dañuy liggéey xam nga ba ci compagnie ñi nga xam ne ñooy jaay crédit ñooy jaay lépp ñoom dañ ci gis seen bopp ndax crédit yaa ngi daw kon lan moo tax ñooñu mënuñoo génn ñu naju waaye bu keneen war a ko outside nga gis flyer si foo jaar compagnie yaa ngi jàppale léegi lan moo tax gëmul ci loolu man yéete dama ne lii soxor la wala dañoo bañ suñu attitude dem wala du ko ndaxte ñëpp a ngi koy jooy ah, comme nu ma ko waxee nguur bi dafa am ay loi yi nga xam mu ngi copyright law bi mu ngi trade policy bi mu ngi information uh, and information and technology uh, uh, policy bi lii yëpp ay loi yu nga xam ne ne war nañ koo taxawal mu dëgër luwaa bi mu ngi fa ah lan moo loi luwaa di implement constitution bi ngay wane 75% of government music moo war broadcast on our media bena ba pour luwaa bi mu ne da nga war di fay royalties ba luwaay loolu moo tax media si yi nekkuñ di fay artistes yi régulation bi nekku fa mu ngi luwaay yi but implementing ko moo tax ma jox la exemple Rasoline lan moo tax yow man yow mënu ñëw de teg combat da nga am lan sin soo ko amul mu loo teg combat dugul koom-koom bi su nekkul si écrire amul lan sin soo bëggee teg combat nga ne da nga koo jël teg ko fa duñ nangu mu bëri lan moo tax xaalis yooyu yëpp nekku di develop rew mi mm. lool la ara am dat regulation and the creative sector at entertainment bi mm. pour gis na né kep kuy promoter ngay tek ay events war nga am lancing mm. moto ñu am collective society nga am corporate bureau pour make sure artiste tam mëna dem corporate bureau di register sen liggéey yi nga gis na né jamono bi nga eh, mëna am sa data tay soo ne Gambian dañ ma wara fay royalties ana statistique bu koy wone amut dëgg so mm. mm. lu bari lañ wara defar lu bari lañ wara. motax musician yi musician of the Gambia mm. ñu wara lead and we are leading with the other artistic association pour make sonné those legal components is been implement in this country bod Gambien ci nek fi ak ñu nek ci diaspora nda platform yu nek ak fii Gambien yu create diaspora dom Gambien lañ borsole la hmm. ci hmm. tan lan moo tax duñ dee sport Gambian artiste ci bari amna ñom tan sen opinion lu ñu wax dal yëpp suñ tok ñu watal dinañu am solution. macha allah dinañu am solution bu baax hmm. pour loolu. mu nekk lu eh, am am solo eh, mbokk yi comme ni ñu faral di waxee sa paraso spécial tey nak ñi wara a ci li nga xam moy eh, mooy World Music bi nga xam ñu ngi koy wajjal fii ci bureau mi ñi toog suñu doomu ndey waye suñu mak suñu lepp Euh, ko xam ne bu ngeen dégg ay kàddum xam ne réew mi ñor na ko euh, bu ngeen dégg ay kàddum xam ne ndaw ñor nañ ko waaye bu ngeen dégg ay kàddum tamit xam ne ku bëgg réew mi jëm kanam la euh, bëgg réew mi jëm kanam nag bokk na ci nga dooleel ndaw yi bokk na ci nga jàppale ndaw mu nekk loo xam ne tamit lu am am solo la Mohamed tey jii ci tënku maanaam looy digal ministère yi ak ñax xam ne tamit ñu nekk benn buggante ñu soxloo jàmm ñun neen nañ niroo lu ñu woy musique lu lu lu lu diis la looy woy soo ko nuruwut daf lay gaañ kon nañ nekk ba ne bugante jàppalante ni artiste ñu ñëw ñu register si music union ñu mek soo seen liggéey gars yi di produce ñu dem NCA si dem register ko under corporate bureau nga gis ne ne ëllëg soo pensionné si music bi da mën a dem si corporate bureau bi nga seet ñaata nga liggéey woon ñaata lañ la fa denca nga mën a jël foofu nu dara ëllëg sa njaboot sax soo fa nekkul sa njaboot dinañ si mën a am njëriñ si loolu loolu lay ñaax gàmbeen artiste yi jaama bi nañ ko soxloo ba pare ñun neen ñu buggante loolu des na pour wax la dëgga sa mbokk suñ toogee dañ di wax bu neex ba benno bi dafa leen dem tuuti waaw loolu nag ah, waaw kon nañ buggante suñ buggante rek jàmm dafaa ñëw ah soo ne man kenn du man jiite ëllëg doo mën a jiite kenn kon nañu fonkante artiste yi fonka ñu nekk seen gannaaw ñu nekk si gannaaw artiste ñu fonk artiste bi ba pare artiste bi ta xam ne interest booy am yëpp si war a am ñu nekk sa gannaaw loolu suñ ko defee rek ku nekk dina mën a gis sa boppa si aar bi waaw ah, dafa des yow lu nga liggéey waaw ah, soo registré nga am liggéey eh, soo ñëwee si ñun ñu advice la ak suñu legal officer dinañ ko def but artiste bi tam mu am koom-koom dafa des yow lan nga liggéey ndax artiste bi sa management bi ak structure boo def ak content booy produce moo laa mën a dimbale tey Ablaye o Ibrahima gis la ne yow yaa ngi def lu lu lu nice kaay ma liggéey ak yow bon soo nekk wax dëgg la lu loolu nga xam ne mooy ñor nit ñi o mooy ñor maquette bi ɓe bimuna bi muna lu lunga produce deug yalla dina na dé waaw be par music education bi buñ ko bàyyi gannaaw nañ tira ñu nekk musicology psychology moy nga xam lan moy music nga xam def pillars yi nga xam mo art music bi ak principle yi nga xam ne nga wara dundé ci si bi soko xamé rek dafa yuma pour nga jaar so xamé lolu dafa yema pour nga jàll so xamul lolu nga maybe da nga da nga am passion bi rek nga bëgg a woy noonu rek ah, sarta yu fa nek ak éthique yu fa nek ah, jaarlo si waaye dëgg yalla da nga yaga struggle da nga yaga struggle wa so li lay denka ndaw yi di wax ne on the 21st, be 25th, while Music Day celebration bi su fa jógee Gam Fest bi dina ñëwaat ah, ba pare every year dinañ ko celebrate ñu ñëw ñu bokk si ko mom ay jafé jafé manam ngeen wo ko xalal ko ndax yenn say tamit olof njaay dox manam niki bo jaboté ah, sa bir njabot gi da nga dégg ci ko xamné ni namuy doxalé neexul la wala mu naralal ay pex yo xamné tamit ah, depo wut ak sarta rew mi ngeen ok advice ko nako ko li, defal li defal ndax loolu day am loolu moo tax ah, registration is very important artiste yu bari sa in fact register wuñ si musique yi noonu ah problème bari fee ko ci souf kenn dégg ko ah diñ ko musa wax artiste bari ñu nga amé fi problème bes bi gambel talen dega problème bobu ñun yow sa carré jeyna bon ñun dañoo jog dañu no media lool moy important non ya dañoo jog dem solve problème bobu nonu pour media bi buñ ko jot o wax bi mu sew bon pour nga gis ni ñu ñew ci media bi so suñu am plateau plateforme ñu né ñu ngi gërem musique yi ñoo dégg dafa daw yaram de dafa dafa daw yaram amna five artistes ñu amne ku nekk solve na sa problème andu loolu yaa tooñ dañ ko sol mus dem suñu Facebook wax ko mus ñoo dem YouTube wax ko mus ñoo dem ci any media house ndax kër boo moom doo nangu génne sa sutura si biti so loolu ñu ngi ko def bés bu nekk dañ ko dee def any artiste bu am problème ak promoteur o uh, yeneen jigéen yi nga xam ne ay mbootaay lañ suñu xoolee dañ dee meeg so ñu toog ak artiste bi waxtaan ak moom lu nekk seen diggante ñu solve ko fekk wax bi génnut loolu def nañ ko du jee and bés bu nekk ñu ko def but pour wane jërëjëf doo ko dégg si ñoom waaw because they are seen music union in different some of them are seen music union as just a body ak tour kese but yeneen bi pour mu dox seen loxo la nekk waaw waaw waaw um, lu ma ñaan rek uh, World Music Day ñu ngi ko start di ko celebrate twenty fifth twenty eight uh, di oote Gambian artistes yëpp ñu ñëw ak Gambian public bi ñu ñëw ñu am entertainment uh, ak ñun open fri amul fay dafa benn di ñaan Gambian artistes képp ku nga xam ne bokk nga si liste bi waxtu buñ la wax nga tray nga ñëw si waxtu boobu noonu time buñ la jox ak amount of song buñ la jox pour nga play ko on nga def ko nga may sa morom tan mu éeg loolu ñu ngi ñaax artistes yi pour ñu def ñetteel bi mooy media house si yëpp ñu ngi leen a one bés bi seen bés la ñu ñëw ñu jël content bu nga xam ne ñoo ko moom loolu maa ngi ko dénk si media house si ñeneenteel bi mooy ñu nekk benn ñu bëggante kilifa ji loolu dafa manqué nañ bëggante so ay ponk yi la am lu nga xam ne maa ngi jox si Gambien atisi yi di wax ne waa ah, da ngaa ñëw dinañ la jox time bi time bi joxaguñ ko ah, ku nekkal fa nga war a pile ko but list bi su génnee dinaa seen list bi si sa nomba pour media house si ñu jot ko waaw. Hmm. waaw. Euh, euh, waaw ah, di du ci du si ñun hmm. ñun time bi la jox da ngaa ñëw. lapli nga wàcca soo ñëwut keneen éeg ba ñu tëj foofu ñu war a ñëw pour éleg fii ah fekk yaa ko ñàkkaloo sa boppam because xam nga ne ñëwuloo noonu lañ la jox dàmpaay dàmpaay bi nga xam ne wax dëgg yàlla dafa am ñu ñu yaakaar jox ñu loolu kon yoon ñun tan yaakaar bu ñu am si yow nga nekk suñu memba nekk artiste mutal ko gisoo tey bu ma ñëw fii bi ku ku direct programme bi yeb ñew nañ presenter bi ya nga tok da ci nek ñi yëpp ñëwuñu dinañ am génn ci air bi so arbitre nañ fonk sul ligi suñ ne time nangam ñewal time wow. waaw ah di gërëm ah, suñ président bi Pa Modou ah, di grem suñ secrétaire général bi assistant secrétaire général di gërëm suñ ah, programme manager Jali di grem MLK suñ trésorier ak assistant trésorier bi di digirim suma boppa di suma wajuri wajuri di Gambian artiste artis digirim di talent gambe talent bokk talent ñu nga xamne wax deug yalla jappal nañ art bi gambe talent boka na lu nga xamne lepp luy interest rew mi Dis TV ño de nek front line kon amuñ senfe fey di len wax ne ni yàlla may ñu ñun yeb bu fan ak wër bi yaram ak jaama lepp lu nga xamne Pa Ous mu ko bu pour gambe talent aga ak staff yi yalla agal len fi waaw ba ñu tok ñu gis leen si satellite ba in few months ma tok suma kër ma ciun ma gis Gambian tele si satellite wa jere jeuf thank you very much euh, macha allah mbokk yi di leen jaajëfal bu baax di leen ñaanal jamm am kontaan ak mbekté ci sunu sunu xarit waye sunu broda sunu lépp macha allah ñu daloon ko fi nga xamne moy Gambian TV sa para so wara euh, wara waxtaane li nga xamne moy World Music Day euh, mu nekk lo xamne lu am am solo la ñu ngi lay jaajëfal lu baax di leen ñaanal jamm ndax bu amé jamm réew mi am jàmm te bu réew mi amee jàmm ndawee am jàmm ndaxte li nga fi wax ni nekk na kàddu yoo xam ne lu am am solo la Njaay ne day faral di wax ni wax buy génn na ko nopp yu dégg di dégg euh, ndax kàddu yi nga wax bu ko dégg xam ne ay ay kàddu gox la waaye kàddu yoo xam ne tamit luñ nar a def ay kàddu yoo xam ne tamit lu dëggu la ci borom waaye kon ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax yéen ak seen tiim yëpp suñu borom defal leen jàmm waaye def jàmm ci réew mi may ko ndaw yi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu musique seen doomu ndey Moussa Jinne di leen ñaanal jàmm di leen wax salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh next Wednesday insyaallah allah rek ñu ñëwaat ak nga Gambian Talents Promotion Jaliba Manding Corona muna muto nyaladi ngal jalolu na da ganyin badiye anim le pengo ke kabolo bay ngolu ah nze jali ba fere ninjalo nada ninjalo nada kanyin senenda jali suso mandinka uya se ninna fa am vaccine lena jola Maxino Ninta. Soyons sérieux avec Sébastien si on se donne la main. Francis Tangani courant. Mandinka. Ma, alingata. Mbevasino mbevatuka. Allah, alingata. Woyemin tankala. Na, alingata. Mbevasino mbevatuka.

tofi ya kaje jibingua ya ka furfuka buburu alu badara wala kuni anga waru gal jili jang tobi xaar vaccine am na ñëw na ci suñu réew ñum jëli ko war nañoo ku ko am visa ngir dugg ci benn réew ndax dañoo bañ korona tasaaro kaay leen ñu jëli ko vaccine bi ñu doon xaar suna pengu oh bona pengu je jangaro la way ne vaccine bi du gagné vaccine lor ken am na ñu ne dafay wàññi nit ñi du dëgg de garab bi lor ami soofe wolof askan